donc tey dañu ñëwoon euh, doon def tuuru centre examen yi nga xam ne moo nekk ci biir département Mbacké bon donc département Mbacké ren am na fanweeri centre ak ak ñaar bon tey def nañu juróom-benn yi ci biir commune bi ma ma ñu doon ko doon def maa ànd ak ànd si ak inspecteur yi inspecteur IF ak yeneen inspecteurs yi ak waa COSYDEP ak waa syndicaliste yi ak ñëw euh, départemental des parents d'élèves ak waa presse donc c'était ak waa police bon pour xool organisation bi ndax euh, jaar na yoon. bon li ñuy xool li ñu gis généralement euh, organisation bi matériellement amul benn problème bon aussi gis nañ ne élèves yi ñu convoqué woon yëpp candidats yi parce que amoon nañ juróom-benn junni candidat ak ak euh, juróom-ñett téeméer ak fukk bon jigéen ñi toll nañ ci boo téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñett donc donc pour pour dire que ren jigéen ñi vraiment gis nañ ne ñu ngi ci école bi. bon peut-être sax ñu ngi xalaat ne fii ak ay at yu néew euh, jigéen ñi ñoo yore dëkk bi donc euh, gis nañ ne présence bi ci boo boo gisee boo jëlee téeméer presque juróom-ñe juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yi ñu ñëw nañu donc ñi ci ñu ci absenté bariwul bon parce que fii itam aussi Mbacké nañu constaté ne da ngeen xam ne am na particularité bon dafa am franco arabe donc euh, centre yi am na centre yoo xam ne ay centre mixte la da ngay gis français ak arabe donc euh, ci biir centre yi ñu visité visité nañ ñaari centre boo xam ne ay centre mixte la yeneen centre c' est des centres français quoi mais vraiment euh, globalement concept là vraiment présence bi elle est elle est correcte bon surveillant ay aussi ñëpp ñëw nañu parce que presque boo boo compté fukki juróom-ñeent yi ñu ngi ñëw nañu ak ak lu topp donc gis nañu ne daal organisation matériel bi vraiment amul soo xewul boo wàllu sécurité bi aussi ci biir commune bi euh, commissaire bi moom organiser organiser Euh, ñu accompagner ko ak ASP yi accompagner ko ci donc centre yi biir nekk commune bi yëpp sécurité sécurité bi vraiment ça se passe correctement ak ASP yi ak ak policiers yi bon bu dee di ci ci àll bi nag gendarmerie moom mooy assurer sécurité yi. pour centre yi ba xam nan la xale yi di jànge di defee examen bi donc li ñu gis dal xel parce que ba demee ci centre ñu wër yi juróomi centre ñu wër yëpp gis nañu ni bu dee wàllu saal yi fekk nañu saal yi defar nañ ko bu baax fekk nañu ñoo xam ne ñu leen di surveiller ñoom ñëpp ñëw nañu. sécurité bi de assuré nañ ko te de commencé nañu ci waxtu bi ñu waroon commencé muy huit heures. pour ko donc fii ci Mbàkke wax dëgg yàlla amuñu jafe-jafe ci loolu donc lépp lépp lu ñu waroon def def nañ ko te loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax donc euh, sooy xool tey ñoo ngi euh, daanaka juróom-benn junni ak euh, juróom-ñetti téeméer ak fukk candidat yu war a composé mais soo jëlee ci candidat am na juróomi junni ak fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay jigéen lañu maanaam su may xool mooy lim boo jël téeméer boo jël. daanaka juróom-ñaar fukki juróom-ñett ay jigéen lañ donc loolu day wane ni kon fii ci Mbàkke am na loo xam ñoo ngi ko doon def muy politique muy fexe ba xale yi dugg école donc fi mën nañu ni tey réalité la mën nañ tey xeex boobu tey daanaka gañe nañ ko mais lu ci des mooy ñu gën ko renforcer ba ñi nga xam ne jotuñu dugg ñu fexe ñu dugg donc loolu am solo la booy xool Mbàkke tamit am na loo xam ne dañ ko ci mandargaal mooy lu ñu tuddee école franco arabe yoo xam ne dañuy jàng arabe di jàng français donc ñooñu booy xool lim boobu am nañ ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak euh, juróom fukk ak juróom-ñeent donc muy lim bu takku buy wane ne donc fii ba léegi école franco arabe am nañ fi doole te loolu day firndeel politique gu état bi en matière d' éducation du rek benn kii rek la ñuy jox ni ñëpp lii la ñuy def mais dañuy xool lu population yi bëgg aussi ñu méngoo ceeg ñoom mën ko def donc fii ci Mbàkke loolu nekk na fa aussi réalité donc ñu koy saluer bu baax a baax a baax donc fu may daanelee mooy di félicité bu baax ñi nga xam ne tey mobilisé nañu d' abord di remercier autorités administratives yi notamment monsieur le préfet ak sous préfet li nga xam ne wax dëgg yàlla jàppale nañ ci liggéey bi ba nga xam ni lépp li nga xam ne ñoom seen wàll woon def nañ ko ba mu mat remercier aussi xam ne ñoo nekk ci commune yi parce que ñoomit jàppale nañu bu baax ba nga xam ne dañoo war a am ñu ñu war a jël yóbbu leen ci àll bi ñu war a surveiller foofu ñu war leen a dëkkal foofu war leen jox lu ñu lekk lu ñu naan yooyu yëpp ñoom taxaw nañ ci ba jafe-jafe yooyu amuñ amuñu ko di ci profiter également di féliciter suñu syndicat yi nga xam ne ñoom la ñu àndal nga xam ne ñoom it dañuy ñoom ci liggéey fii ci Mbacke wax dëgg yàlla ñoom dañ ñu jàppale bu baax pour dire fii suñu relation relation yi am solo la relation yi intime la félicité aussi waa COSIDEP félicité aussi parents d'élèves bi à travers UDAPE ak UCGE ñoom it teew nañu tey pour bokkoo ñun bés bi di félicité également personnel IEF bi yëpp parce que su ma nee personnel IEF mooy inspecteurs yi ak agents yi ñoom it depuis le début ñoo ci taxaw boo gisee tey lii lépp am ñoom en grande partie ñoo tax donc ma leen di félicité bu baax a baax a baax jàpp bi di féliciter enfin la presse yéen it ñoo ngeen di jaajëfal bu baax ci liggéey bi à chaque fois ñuy am lu ñu war a def dangeen di mobiliser mu ñëw jàppale ñu ci gën a mën a diffuser liggéey bi ñuy def à travers le département à travers le pays donc yéen ñoo ngi leen di jaajëfal baax a baax a baax di ñaan yàlla gën leen a taxaw yéen incha allah. pour les centre am nga comme fukk ñaar fanweer rek ñaari centre la ñu am dafa am fukk ñaar yoo xam ne ci commune Mbacké la nekk mu am yoo xam ne ñoo ngi ci arrondissement Kayel ñaar yoo xam ñoo ngi ci commune arrondissement am fukk ak ñett yoo xam ni ci arrondissement Ndaam lañ bokk mooy booy xool commune Ndaam boobu ñaar fukk ak ñett yi ñaar fukk ak ñaar yëpp ci biir Touba la nekk. pourquoi mu nekk biir Touba parce que biir Touba léegi école franco arabe dañ fay bari privé yi te bëgguñu xale yi ñu leen di jël ñu ñëw ba Mbàkke di composé donc pour gérer question de proximité bi moo tax ñu lañ fa créé ay centre loolu aussi day wane tamit wax dëgg yàlla nit ñi tamit ñoo ngi inscrire bu baax bëgg seen doom yi jàng et cetera donc lu ñuy rafetlu la di ñaan a yokk bu ko defee suñu département gën a jëm kanam fu may jaaxale rek mooy ñaanal xale yi nga xam ne ñooy composé yàlla ma leen defal ndam. incha allah.